Euh, liberté de liberté 1 responsable SICAB yëpp daal maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu madame le ministre euh, di nuyu mbooloo mi nga xamante ne ñëpp ñoo fi toog euh, di di di di naan ñoo ngi sant yàlla parce que yàlla daf ñu jox benn leader boo xamante ne macha allah depuis ba mu duggee extension du léegi yàgg na def biir extension yàgg na def benn solidarité extension lépp loo xamante ne da koy def boole na ci waa Liberté 6 extension li koy firndeer rek li euh, waa Liberté 6 extension yëpp ñoo ngi ci ci ci ci ginnaaw euh, comme association yi bo association ànd bokk liggéey euh, may may lim rek koo xamante ne muy Khady moo ngi fi ñoom Tane moo ngi fi ma bañ a ak ñoom Tata Diallo comme ça ma bañ a kii yëpp ak bu bu bu maire Babilowane bi sabililaay naan leen rek local yi la ñu nekk waa Liberté 6 extension li ma leen di sant euh, kii bu beige marron bi rek bu ngeen demee ngeen première li ngeen di voté mooy beige maron bi ngeen dugal ko madame le ministre Zahra Iyane Thiam beneen bi deuxième kii bi euh, euh, ville bi mooy Diouf saar gis ngeen ko moo ngi nii muy Diouf Sarr loolu laay ñaan extension yëpp te xam naa ne dinañ ko def parce que madame le ministre yàgg na fi di def lu baax mooy koo xamante ne nag mooy candidat bi nga xamante ne kenn du ko ràññante Liberté 6 extension Liberté 6 extension candidat bi la ñu xam xamuñu keneen xam bañ nañ ko ba sax xamuñu yeneen candidat yi te xam naa ne suñu maire bi suñu mairie bii nag buñ koy wax dañ koy jox koo xamante ne attan na ko jàng na xam na ni mu demee du suñu mairie bi duñ ko jox koo xamante ne dañ koy ngoyaane yaakaar naa xamante ne moom moom la ñu war a jox mairie bi mooy ki attan mairie bi mooy ki nga xam ne buñ ko joxee Liberté 6 extension dafa soxla pavage dina mën a pavé euh, Liberté 6 extension dina sécurité baa ngi fi ak lépp ak lépp kii mooy le candidat favori baa ngi nii bu ngeen gisee lii Liberté 6 extension mësul génn nii ci politique c'est grâce à elle kii mooy leader bi je vous remercie fii dara rek moo ko waral mooy dañuy jàppale euh, madame euh, le ministre Zahra Iyane Thiam li nga xam ne moom la bëgg ci suñu commune tey jii man bu ma taxawee fii ne damay politique ci biir euh, commune Sicap moom moo ko waral parce que dañu gis lu ñu ko jaral mu nekk nit ku baax nit ku xam liggéeyam ki nga xam ne mi ngi jàppale jigéen ñi di jàppale mag ñi di jàppale ndaw ñi di jàppale tamit retraité yi te fonk na SICAP SICAP la dëkk SICAP la am te buñ ko ko joxee ne naan xam ni jox nañ ko ko xam ne ni ñu liggéeyal suñu commune duñ ko retraité ko regretté incha allah kon boog ñu leen di ñaan yéen ñu nekk SICAP yéen ñu nekk commune SICAP ngeen voteel madame la ministre Zahra Iyane Thiam ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñëpp ñi fi teew tey di wax ne tey Liberté 6 extension yëngu na li muy calme kalm calme ñu leen di tëkkaleeg ay euh, ay ay ay ay ay ay ay tubaab daanaka tey ñëpp génn nañu kër yëpp génn nañu lan moo ko waral mooy Zahra Iyane Thiam Zahra Iyane Thiam yàgg a dugg si koñ bi yàgg fee jàppale mbooloo yi jàppale association féminine yi jàppale jeunes yi di jàppale yi tamit këru diine yi jumaa yi ak jàkke yi nekk Liberté 6 yëpp mu dugal ci loxoom ba xam ne tey fu mu dugg du am gàcce fu mu dugg rek jaaraama la fay jëlee alhamdulilahi rabil alamin ñëpp fas yéene ko jàppale nag ci lii mu ndëgmal di ñaan yàlla suñu borom mu may ñu ci ndam defal ko ndam lu kawe njortam ñun ñëpp ñu ànd ko fekke ko kenn bañ a manqué te mu muur ñu muurloo ko yi tamit Liberté 6 extension yëpp fekke ko te gis ci seen bopp ndax projet yi mu tëral wax dëgg neex yàlla gis nañ ci suñu bopp ba tax ñu koy accompagner. di rafetlu taxawaay bi di gis ni yéen a ngi jàppale madame la euh, le ministre Iyane Thiam bon comme tubaab ni mu wax rek tout ce qui se met est mieux que quelque chose ku gis taxawaay bi gis mbooloo mi xam ni mu ngi def liggéey bu baax ci localité bi ah dañ koy ñaanal rek ñun nag nous sommes des étudiants de la de la SICAP voilà on vous pour ton travail di la ñaanal li nga bëgg yàlla nga ko am. waaw ah, di woo waa localité bi tamit ñu jóg voté la parce que gis nañ liggéey bu baax bi ngay def ñun nag sexal nu lem pour ñu yow timtalee du wax wala dara doonoo gis ne sa liggéey dafa rafet te yaa ngi jàppale koñ bi loolu moo tax ñu ñëw am idée bu rafet pour seedal la li ngay def si koñ bi. voilà nun nag ay étudiant lan te xam nga ku wax étudiant xam nga day soxla voilà camarade <laughs> boo gisee étudiant ñu ñëw tamit jël euh, micro bi di wax ak yow euh, xam nga étudiant lu muy dund parfois day soxla ay aide ay saa ñu doonoo nekk en phase euh, d'obtenir d'obtenir notre licence à INSIP Euh, le 22 bi samedi incha allah moo ni suñu suñu suñu kii suñu projet pour jot suñu licence di ñaan nga jàppale nu parce que ñun amuñu lu dul suñuy suñuy njiit voilà loolu la woon bu baax tamit. merci dixième jour de la campagne électorale des élections territoriales nous nous réjouissons d'être euh, ici aujourd'hui au niveau de Liberté 6 Extension euh, dans le cadre de notre tournée Euh, pour partager avec les populations de SICAP notre programme, notre projet de mandature. Nous nous réjouissons au terme euh, de cette étape d'entendre la voix des étudiants, puisque c'est une frange importante de notre population. Nous avons un programme d'accompagnement, euh, d'abord en faveur des tout-petits. Nous savons que l'enseignement supérieur n'est pas une compétence transférée, mais euh, dans le cadre de la formation et de l'employabilité des jeunes, nous, nous devons de créer les conditions euh, pour justement mettre euh, les, les, les, les euh, les outils nécessaires à l'épanouissement de nos étudiants. Donc il est heureux de voir que les étudiants également adhèrent à notre projet de mandature et euh, c'est un dialogue qui continuera au-delà de ces périodes de campagne électorale. Je voudrais saisir l'occasion également pour me réjouir de l'adhésion massive des populations de Liberté 6 Extension. Ça a été dit ultérieurement. C'est une population qui n'a pas l'habitude euh, d'intégrer des campagnes électorales, à fortiori être dans la campagne. Et c'est ce qu'elles ont fait aujourd'hui, parce que justement convaincus que nous avons le meilleur programme, certes, mais surtout convaincus qu'il y aura des engagements et des réalisations une fois que nous serons portés à la tête de cette communauté-là. Euh, D'autant plus qu'il y a nécessité d'un meilleur cadre de vie. En tout cas, il faudra améliorer le cadre de vie. Il a été beaucoup question de pavage, de sécurité. Donc, euh, nous, nous remercions toutes les populations pour cette confiance-là. Et euh, nous appelons également tous les autres à massivement Euh, voté la liste Benno Bokk Yaakaar et pour la commune de Sicap Liberté et pour la ville de Dakar. Que je tire, si c'est vraiment pour être honnête avec moi-même, c'est qu'il faut que je rende grâce à Dieu et que je rende grâce à mon père. Ah Il m'a permis d'avoir de mon suffrage. Parce que partout où je passe, les populations m'indiquent que même si on ne voulait pas voter pour vous, on va voter pour vous à cause de votre père. pour tout ce qu'il a fait pour ce pays-là. Et ne serait-ce que pour ça, vraiment, je ne, lui, je ne le remercierai jamais assez. Et je comprends mieux aujourd'hui pourquoi il a sacrifié sa vie, il a dédié sa vie à son pays, à sa religion. Mhm. Donc ça, c'est le premier enseignement que je tire de la campagne. Le second enseignement que je tire, c'est que les populations savent ce qu'elles veulent. Les populations savent ce qu'elles veulent et les populations font leur choix. sur la base de critères bien définis. Le troisième enseignement, c'est que les populations de SICAP ont déjà choisi. Et on saura maintenant quel a été leur choix le soir, au soir du 23 janvier. Mais à cette étape-ci de la campagne, je suis persuadée, et tous les candidats avec moi, qu'ils savent que les populations sicapoises ont déjà choisi. li buur ak di ànd ak moom ci jàmm rek du nekk seen noon du ñu xeex ak moom mu nga jóge ca foofa nee na seen bàyyi Karang Aliou Soare moo waaw moo fa demoon mooy seen baay ñoom Aliou Soare papaam moom la yónni woon karan sanu si bi mu demee ca moom na kooku ne ko ni nga def ba yegg si fii kon yéen du ngeen n'importe qui kon ñu nit xam ne da xam ne yéen mun ngeen dox nu mu leen neexee doxal nu mu leen neexee doo duñ leen musa fitnaal wala ñu wax leen dara maanaam ñoom ñu yore wàllu nguur gi di jaay doole dinañ ko jaay ñëpp waaye du famille soirée boobu ak bu ak ñoom sëriñ yooyu Macky Sall nit ku baax la ndax tey ñoom Gambie ñu ngi sant yàlla bu baax ba nga xamee ne Adama Barrow lëkkaloo naa ak Macky Sall ba tey ñu am li ñu am foofu ca Gambie. nee na moo réglé seen dëkk Macky Sall moo dimbale Adama Barrow mu réglé kontaan nañ ci moom bu baax ak képp ku ànd ak moom. nee na kon Macky Sall bu ne jiital leen kii ngeen topp kii kon kooku nit ku baax la muy ministre Zahra Iyane Thiam mi nee na kon nit ku baax la Zahra Iyane Thiam dañ ko yàgg dégg mësuñ ko gis lu dul tey dinañ ko ñaanal ko madi hawa kan nee na ñetti magam yooyu nga xam ne lu ñu a ñaan yàlla nangu ko moom tam dina ñaan pour que moom it fi ñu ñooñu jaar rek mu jaar fa pour moom waaw allah haɓe amin amin a baraka a baraka soire amin amin alan ayen suukoni jam ayen contane ayen sewa kaɗum si ke mhm. mhm. na ɗum ñëw bi neex na ko torop mënoo xam sax fi mu ko yem nee ndax nitu nguur tamit dafay ànd ak kon fu mu dugg rek indaale na xéwal waaw nee na bég na ci lool lool lool sey ak ñi nga àndal ñëpp ak ñu lay dimbale yëpp mi ngi ñaan yàlla sottal yaakaar yi defal ñu sutura yokk damay jéggalu rek si tardé bi ndax euh, sànq laa fi waroon ñëw côté une bi ñu génnee ba war a jëm si fii lañ ma woo urgence ma dem bi ma dellu see rek dañu ñëwaat fi ñu yemoon ci daje bi ñu ñëw waaw moo tax ñu tardé ñu ciy jéggalu bu baax a baax waaye ñi ngi sant nag yàlla bi nga xamee ne may nañu ba ñu yegg si ñu koy gërëm di ko sant di am mbégte lool ci kàddu yi nga xam ne wax na ko di ñaan suñu borom bu lii ñu dëgg dëgmal wéyee te muy le 23 janvier dinañ ñëwaat ba fii incha allah pour sant ko gërëm ko ci taxawaay bi mu taxaw ñu koy sant aussi ci turu président Macky ndax bu ñu dee ay candidat it ay jëwriñ lañu ay ndawam lañ fu ñu dem rek daf ñu faa yebal euh, Macky Sall muy taxawaay aussi bi ñu am ci président Barrow ndax ñoom ñaar dañu bokk maanaam destin dañu am destin lié ndax Gambie mi ngi ci biir Sénégal kon benn lañu kon ñoom bu ñuy ñaanalee président Macky Sall ak président Barrow Sénégal ak Gambie yëpp lañ ko defal ndax jàmm ci la lépp xaj te ñoom li ñuy ñaan mooy jàmm ju sax bu mën a law ci askan wi kon loolu tamit ñi ngi ko ciy sant di ko ci gërëm moom ak njaboot gi yëpp. na lee rek mooy ñi ngi delluwaat di ko dénk suñu bopp mais di ko dénk surtout suñu candidat de ville muy le ministre Abdoulaye Diouf saar dinaa fexe bu fekkee ne xaj na si mu ñëw fi. waaye comme ni ko Anta waxee bu dul léegi it dina fi ñëw dina fi teg tànk moom tamit. may ñaan nag ne yàlla bu fi beneen candidat ñëw bu fekkee ne ñëwuñu fi ba pare ñoom ñëpp nañu des si bunt bi ñu tëj leen bu fi beneen candidat ñëw te xam naa ne kenn ñëwagu fi dañoo réer kon nañu continuer réer <laughs> jërëjëf.